معد وجه النصارى الله لي بلا إله إلا الله شريك جرم إبرايا دم بامبا يا دار يا دبيت دم يونين يا يوكن جامع يوم لما يومبا ba tax mu yendoo tagg Seexu Bamba Cheikh Ibrahima Mbacke topp jéego baay bi déeki biir moom mooy yaaram Cheikh Ibrahima Mbacke topp jéego baay bi déeki biir moom mooy yaaram yaa tax nu def yokku jasaawu sakku yàlla nga yokku Mbacke bala yaay góor jaloore ko foofu tasilu ma sabata lil musafain axna yamini anasan wa mitfain ñetti fan ak ñetti ci weeru tam xarit la ci bee ma tax sa tukki bee ma gën a neex dem Makka may ma ca yool ba màgbitu ak kàng watal masiri fawqa hajjin wa la Bamba wax ca yool ba mooy suñ muraad Cheikh Ibrahima Mbakke xar baax ci kaw xar baax sosoo ci xar baax di xotti baax kenn mënu laa tere baax géej sosoo ci géej te dëkke duusu kenn mënulaa nga xal di bant kuusu ku donn ay joloore donn ndam yaa yaa donn mbër ma bu nga làmbi mbër yaa ñetti limoon bay fóoti di alxaaji nandoowu ci bàmba ciy sunu waaji yàlla nga boole mbooti ahla bahri ci dara jaar ak ahla barri amina amina ne leen amina ci darajay Seex Bamba kay maamu yéeni murit nañu siyaare baay ndem demu leen Tuuba ki Mbakke baay Seex Ibra Mbakke nga fa toog waare ku ñëw mu may la wata yaa ngay gaare watiir ya ak fort ya dañ daa gaare active 45 ya kariyai ban desu fa mar fa mer maare lépp ni gépp baari dootul xaari jannaatu addinaan lay misaal fa baari yananti yol ya fa la bor jaari wa maskani sallim min al fujjaar wamnun ala ahli bi maa yuñ jëri ko wax Tuuba ki Mbakke baay man naan solo ndox yooyu jaari seexal gi seef ñëpp a waral di jaari kenn waru koo tegee di cay noy gaari lu bukki wiir wiir war jaari ndaari te baari mat nag ndaari lil anhaari taxawlu naa yàlla na Sëriñ Tuubaana defar suñuy mbir baatinal aw baana wa wahaballahu li Muusa ànd ak Sëriñ Tuubaa te tàggoo Buusa jërëjëfati ñoo ngi sant bu baax